And then some people will be raised in homes where everything is fine and then they go on to do something that's actually indecent. So the home sometimes has a role to play in it, but not all the time. You can't actually blame the home for what actions you do. So you're saying that you're blaming the child itself? Yeah, I think it all depends on the person's will. Uh, what do you have to? What advice do you have to give to the children watching you outside, or the teenagers actually watching you outside? be decent, save yourself for the future when you actually grow up and you're ready to have a child. And just be decent and stay out of trouble. Thank you, Nina. You're welcome. Um, hello, how Smile again. Smile. Um, hello, I'd like to ask you a question about teenage pregnancy see a lot of teenage pregnancy here in the Gambia. It's seriously on the rise. Why do you think teenage pregnancy is on the rise? What is, what is the cause of it? Uh, I think there are two reasons why teenage pregnancy is on the rise. One can be ignorance, and two, lack of communication with their parents. I mean, we see that a lot of a lot of teenagers are not educated and how, what to do and how to do things and are educated on teenage pregnancy. And we see that a lot of people do not talk to their children about sex, and that that is a real downer because the children because the children without being educated about sex from their from their parents they won't be able to to know what to do their do's and don'ts and they won't be able to be straightforward when talking to their parents about what they want to do or what they where where they are ready to get involved in sex or not. Okay, um, what are you blaming the parents or are you blaming the? I'm partly parents? blaming. I'm partly blaming the parents and the children because we've seen that I've seen in a lot of instances parents that actually talk to their children about sex, other other people that have the children that that avoid having being pregnant, but teenagers that have that have been ignorant and you know have those communi- that communicate atmosphere with their parents, they are actually more victims of human pregnancy. Thank you, Ismail. Thank you. Adama, um, Adama, I would like to ask you about a teenage pregnancy. In your own opinion, in your own point of view, what do you think is the cause of teenage pregnancy? Well, I believe it's curiosity. As young people, like we are curious to experience everything. I believe that's the cause. Uh, what do you think is the best way to mold your child against teenage pregnancy and peer pressure? Well, I believe that mothers should like have this intimate relationship with their children. And I won't feel shy to talk to her about certain things, especially regarding changes that she will be experiencing from teenage to you know adulthood or becoming someone who is like tuning into an adulthood. So you are uh, def. waaleykum salaam wa rahmatulah. Uh, uh, gis nañ ne bëggoon naa la laaj si li nga xamante ne mooy ndaw yi nga xamante ne ñoo biir te seeguñ ay nekk nañ ay xale yu ndaw bëggoon naa la laaj loolu gis nañ ko ne bari na si dëkk bi fii nii bu baax lan nga foog ne mooy cause of lii. léegi man li gis luy cause loolu xale dañu war di wàññee loo xam ne. di wàññee jéene daal di yéene guddi daal loo xam ne seen waajur defuñ ko sax ñoom dañu war di dox di limite seen boppa because nit da nga war a seet sa waajur lu mu mel xam nga nga seet lesin boo xam ne jos man maa ko seetee suma waajur nga toog góor bu la soxla rek na la fa fekk seen kër waaw jigéen bu baa da toog sa kër góor fekk la fa moo gën boo jéenee ay dem bicc ay dem fu nekk loola fa dal yaa ko tegal soo fa waaw man loolu laa gis daal. ah Ousmane yow si sa xalaati boppa yow kenn kan ngaa blame papa yi ndax papa yaay wala do xale bi si boppam. non xale bi la Vox Pop that was done by Fatima Zahra Jallo, sounding the opinions um, of, young, of people, especially young people, about uh, what they think of teenage pregnancy, the causes, and what exactly needs to be done to curb it. Fatu. Um, abaraka bake ablaye mbadiŋol aliyamoyle fondinke'el faŋol ye miŋ fo ko wa doo bi je a ka kumpabaliyal wala ka sunkudindin dool duŋa bari fanaŋ wululal fana ye pat sota le nyanta min pilela ni tedi ngota ta fay kuroje ngam lete parents le responsibility le ya kuma ndiya fay sañ nyanta nyinni nyinne bulala wonte niyake abe nyinni nyinni wulule ya understand so Abdoulaye Badji te nga xam ne wala. waaw Fatou comme ah, léegi lu ñoo def rek mooy ah, danañ ah, ibi line si bàyyi nit ñi ñi nga xam ne ñu ngi seetaan rek. Mhm. sànni sànni seen kaddu wax ñu liggéey foog si li nga xam ne mooy pregnancy di causes ak li nga xam ne loolu leen war a def ngir saafara lii nii. nomay nag mooy 4375905 4375905 ak 4373910 4373910. ate mela baake dorom be lay nul yele laale ali école ke ibe nomba sol ñin sa ankale jele fele screen mo bala fa ali école ke 555 ali ya ali ya funyatu le mira ñim pi topi yo baraka bake fatu wo kuma ya tele so léegi euh, lu ñoo def rek mooy Fatou. Mm-hmm. we have this xam nga comme last week bu ñu starté this programme leen isilon segment bu nee. segment bi nga xam ne nag amoon na ay nit ñu rafet ñi nga xam ne ñoo daxa si àddina si. Mm-hmm. am lu spécial lu ñu leen isi. Mm-hmm. ñii nag dañ nekk euh, ñu nga xam ne ñu ngi démonstrate. démonstrate bu garaaw. waaye du ma def wax bu bari Fatou lu ñoo def rek mooy dañoo bàyyi gars yi seetaan. Ah, balaa loolu dama ko si soosee. nit ñi mën understand last week kabri nga programme start ko take nga nataal ñi ma baal funte mi ye mool kontaan baake ñin man kena tal video leng ba play la le bar ñim molet mi yan ko itol i kan fatale ko be min keke mi be min keke kan jang banko kan amandi ya do hani ferem ferem ferem mm. sa e ñin a kat tandi mo le be demonstrate kan nak bari ba video play la fon le ajube nim mo tan mm. al ya fon ya atole mi mi raje na fre non lom so mi tala ni ñim video bare memro la sign sign tel you kumolu bina ñin tani la mulla ko to funa wul de demonstration la ka ñin non ku dim yalo ka be tama kan ñin dunya banko ka ni ñin gambe banko ka hada ma ding la to ñan kumol fe bat bat to ñan kumolu fana la right so de ka tol han mole subu kulo tika don be susu kan asa molle mbali ala subu mi yaron kan susu faka fa ya fa kon bodo ma ya molle pa da le mun tawi asi falti ah dal buka fale de hani han na ya lo wan dal malam buka yan fale adene ke dal dembe siri haruna kanela bun kono da e mba da mba susu da mba subu kulo susu nyen tim pa do man na mun jawi asi fala wot dal buka yan fale de wa bari ko ntole wo ɓe ñola wo ñanko moɓe kam farin bake la koy kamin kela banko ka mandi e hando mandinde hani subukulo niya ciga ikoy ba susule seli pa foye tela fikati la an kaka woke an ga ñanko mol bula e fana e freedom o soro jang kadin ka démocratie le fo ni ga démocratie fo ñanko mol fana ndabi jeel ni ga nakulol su ni payda al ngi bule tul fana yela wala soto je ablay baji ah, lo fo bari yalla ñing video mum euh, pour fat sank by fasane kan nyankumol eh, duro <laughs> all the time nyankuma so. ba nyankuma ndingo exactly. ibe complain kam ba kele fasane so nka fo ile please nga demokrasi sota janne nga nyankumol fana bule fana firi ye kulon susu mm-hmm. ah, especially fat fat sanela of nitar je kulujuma bije ba ni fere je <laughs> akeli pale o oh, dum bambetea yo thank you very much uh, Fatou mbokk yi ñu seetaan ñu uh, ngi leen di fàttali rek ne ñu seetaan uh, seen programme yi WhatsApp tey nag lu ñu waxtaanee mooy teenage pregnancy teenage pregnancy nag si kàllaama angale mooy ndaw yu jigéen ñu nga xam ne dañuy faral di jël biir balaa gaay di am 19 years maanaam fukki at ak juróom-ñeneent. Mm-hmm. képp ka nga xam ne rek bëgg nga bokk si programme bi sànni si sa kaddu wala sa xalaat wax ñu rek loo foog loo foog loo leen war a def saafaraal programme bi mm-hmm. yëf bii nii. mën mm-hmm. nga ñëw koo si numéro yi nga xam ne moom ngeen a gis si screen bi waaye dafa mel ni am nañ suñu first caller kola hello kola kola kola hello hello kola uh, fire. it seems like we've missed mm -hmm. that caller. Yep. But just to remind you, you can call us on 4375905 or 4373910. And GRTS is on satellite. So mm -hmm. even if you're outside the country, government in the diaspora, you can see all you what just GRTS. need to do is 220 and you'll be connected live in Banjul. That is it. program entirely. dadali purato num fana be bantaje al bikon tol ma long ba fakane rek lambe nyoso kan hakilol la na alale telephone fo mole ko munatina it seems we are on a caller caller yes hello, hello caller hello hello caller hello hello yes hello, hello. na def na def jama rek ma ngi okay tour bi ak fo ñoo kolé ngi kolé bu no maa ngi tudd Aisyatu calling from Bundung. Yeah. Oh, ya. Very good. Dengan bukan apa kasih program ni Aisyatu. Saru. Nam. Selawat si degala. Wow. Anga degi khale bundau mubir. Mhm. Mm-hmm. So saya food saya ada flower awal. Mhm. flower tek mual lah. Mhm. Degali. Mhm. Why sometimes like they blame halay. Mhm. Take I see parents